bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man daa bi daawatihi wa saara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi ginnaaw bu nu sante sunu boroom julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di ziyaara ci bis bu tedd bi di bisub ajjuma di fukki fan ak juróom-ñaar ci aw baraxlu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent aw baraxlu nag su amee fukki fan ak juróom-ñaar eh, am na lu am xel war a daj waaye bëkk démb du fukki fan yi ak juróom day bisub fàttaliku mooy bis ba nga xam ne liggéeykatu sayyiduna muhammad alayhi salaatu wassalaam jaamub yàlla ba moom mi laxasaayo woon di liggéeyal lislaam woote jëmee ci lislaam ñu ne ko doo ko fi defee doo ko fi wootee ba tax ñu ne ko cas yóbbu mu fab ginnaawam batale ko ak ay jàmbaar yoo xam ne lam leen dénkoon nañ ko sàmm sàmm bu rafet yore pas-pas yu dëgër ak ngor gu dëgër ak diina ju sell ba mu delsi ba mu delsee fekk na ne téeméer bu mu dénkaane woon fekk na mu doon junni bis ba nga xam ne nag ca daje ak que mu jiitaloon ca mbooloo ma mag ña mu bàyyi woon ginnaaw comme ca jiitaloon muy maam Thierno bis ba mu dajee woon ak moom ca Ndar di fukki fan ak juróom ci baraxlu moom lañ doon fàttali ko barki démb kon bis la boo xam ne su ñëwee war nañ cee fàttali ko waat pas-pas bu dëgër ak ngor gu dëgër ak diina ju sell ñoom ñooñee nga xam ne ñoom la dénkoon dañu sàmmal ko saytul ko ba amu ca dara lu ko ca naqari ñoom ñëpp yàlla na leen sunu borom fay kon bis la boo xam ne bu jara fàttaliku la bu jara teewlu la bu jara màggal la waaye muy bis boo xam ne itam dafa tombeek juróom-ñetti fan ci weeru mars muy bis boo xam ne at mu jot su ñëwee adduna sépp dañuy maase wax ne dañ ci delloo njukkal soxna yi bu ñu ne delloo njukkal nag soxna yi ñi nga xam ne tugal da leen a jël njël mu njëkk dañuy defe ne soxna yi bu ñu amee sag wala teraanga tugal moo ko jox te te tugal fa mu jaarak soxna yi mooy kaay leen sol lu leen soob kaay leen dem fu leen soob kaay leen def lu leen soob te bu kenn ne déet waaye bu dee lislaam nag wax nañu fii ba tàyyi ne mbalaanum teraanga mi mu muuroon soxna yi moom rek moo leen ko muur te mbalaan mooma képp ku ko muri sagaloo leen lislaam dafa xamal soxna yine leen yéen a góor ñi yéen a bokk fu ngeen soqi ay naw la ngeen yaa yaa ayyuhan naasu ttaqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida lislaam dafa xamal soxna yi ne leen yéen a góor ñi yéen a fa kanam yàlla ku ci def lu baax te pas-pas rekk lal ko su ëllëgee yàlla fay la kon góor gu baax ak jigéen ju baax ñoo war a ànd te ñoo mën a ànd wa man yaamal min alsaalihaati min dakarin aw unsa wa huwa mumin fa ulaika yadxuluuna aljannata wala yudlamuuna naqira lislaam bi mu ñëwee dane soxna yi ku ci am njaboot njaboot ga nañ ko teral wax ne àjjana mi ngi ci ron tànki yaay taxta aqdaamil ummahaat tax na ba ngën ji mbindéef su mosaa gis soxna xalimatu saadiya mi nga xam ne fa mu jaar ak moom ñëpp xam nañu ko day dindi kaalaam lal ko euh, ndax teraanga ji nga xam ne moo war digganteem ak moom alquran wax ne dénk naa nit mu rafetal ci ay wayjuram daal cee nag beral loxo wajur wu jigéen ne way wajur wu jigéen de moo ko ëmboon di laslasi ba mu muccee tam muy laslasi muy ku néew doole ñu dénk la leneen lu la gën a néew doole wasa wa wassayna al insana bi walidihi ihsana xamalatu ummuhu kurhan wa kon yaay ji ak doom ji kenn amu ci doole moo tax ka ñëwoon ca ngën ñi mbindeef ne ko ana ku ma war a toppatoo di ko sagal di ko teral mu ne ko sa yaay mu ne ko bu jàllee mu ne ko sa yaay mu ne ko ak kan mu ne ko sa yaay mu ne ko ak kan mu door ne ko sabaay dafa xam fi nga xam ne fa la wayjuru jaar wayjuru jigéen jaar ak doomam kon nag teraanga ji nga xam lislaam jox na ko wajur wu jigéen boo demee tugal ñoom duñ ko jox seeni wajur yu jigéen ndax tugal jigéen ju fa màggat wala góor gu fa màggat dañ lay génn ca kër ga yóbbu am am fuñ dénkaane foo xam ne fa foofa lañ lay saytoo baba ngay wuji sa borom kon ndeke lislaam dëgg-dëgg moo teral way jur bu dee sa doom nag dafa wax moom ngën ñi mbindeef ne amul benn jullit boo xam ne sunu borom dénk na ko ñaari doom yu jigéen mu rafetal jëm ci ñoom ànd ak ñoom ànd bu rafet jàngal leen yar leen jubbanti leen nee na lu dul su ëllëgee doomu jigéen yooyee ñooy ñooy jàpp ci loxoom tàbbal ko àjjana kon doom bu jigéen mën na ràmm way juram maa min muslimin lahu bintaani fa yuxsinu ilayhima maa saxibatahu aw saxibahuma illaa adxalataahul janna kon ndeke waajur wu jigéen ni mën a ràmmoo doomam ni la doom ju jigéen mën a ràmmoo doomam moom sax da ko gàttal moom ngeen ji dana daal ci dëgg-dëgg ku baax daal mooy teral jigéen ku ñàkk solo daal mooy ñàkkal solo jigéen ma akraman nisaa illa karim wa ma ahanahunna illa laim kon bu dee teraanga dëgg-dëgg lislaam moo ko jox soxna yi waaye tugal moom joxu leen benn teraanga joxu leen benn sakk أشهد أن لا إله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 waaw mas naa wax moom sayduna muhammad alayhi salaatu wassalaam ne inna fatimata bidaatun minni yaribu ni maarabaha fatimatu mii day aw doggit la ci man ci man la soqi koo lépp lu ko wokk xurima kon lépp lu ko naqari rek dana ma naqari loolu day wane cër bi nga xam ne lislaam digal na wayu wayjur wu góor mu jox ko njabootam bu dee soxna itam dafa wax ne ki gën ci yéen mooy ki gën ci waa këram kon soo gisee ku fonkul waa këram xamal li gënul mu ne xayrukum xayrukum li ahlihi wa ana xayrukum li ahli man maa gën ci sama wa kër ndax maa leen gën daana wax ne àdduna xéewal la yóbbal la waaye yóbbal bi gën ci àdduna mooy soxna soo xam ne boo ko xoolee sab xool sedd soo ko wanee ginnaaw sam xel dal mu ne xayru mataaci dunya almaratu saaliha in nadartu ilayha sarratka wa in xibta anha xafidatka fi nafsiha wa fi malik moom la ku baax ki naan wa zawjatan saalihatan tuiinu ala tuqa wal birri yaa muiinu moom lay wax naan wa tawbatan qubilat ma mignatin rufiat ma zawjatin saluhat biddiini yallaahu kon ñoom soxna yi lislaam da leen a digal ñu jàng waskurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal xikma am na ko mosa ñëw ci ku baax ki mu ne ko sa doom jagane woon adduna jamono sàngam xanaa mat naa dal mu ne ko bu doon góor day dal na mu ne ko bi muy jigéen nag mu ne cell mu ne ko ñooyam képp te waxoon na ko wa kawnahu saatata sibyaani wa shiibi wa shubbaani wa niswaani kon jigéen ñi dañ leen a war a jàngal boo demee daaray maam jaara ca poroxaan xam ne ay kaang ñanga fa ak i fóori tey ay jigéen boo demee ci daara jii ñu ubbi barki démb xam ne ci kàttanug yàlla la fa sëriñ bi yéene ak lam fa naal dana génn ay kàng yu jigéen ak ay fóori yu jigéen yu jàng seen diine ba ne xam seen àdduna ba ne ar yàlla ko ci yàlla defal ndam kon dañuy jàng dañuy daan seen doole ndax lislaam ayiwul jigéen mu daan dooleem waaye na na sàmmoonteeg la mu war a sàmm am na ku waajuram doon dem tool mu tere ko waaye bam ku kalaamee ak ngën ji def dana ko génnal dem tool loo ca amee di ca def lu baax di ca sàkk sarax wax naa fii nag ba tàyyi ne soxna yi am nañ ay ndam yoo xam ne lislaam moo leen ko may sañ nañoo yëkkati seen loxo wax ne man jigéen day maa jëkk am ndam sàngam te faat na góor dootu ko am wax na ba tàyyi ne soxna xadijatu moo njëkk wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kon mo njëkk a bi yàlla yónnee ndawam la moo ko njëkk a gëm te yemul ci ci gëm goo xam da koo wax waaye da koo jëf da koo taxaw da koo jàppale da koo yiir ba ni mu génne àdduna moo taxit am na lu jenn jigéen amul wolof day léeb naan du ma bëgg lu neex kenn ba ne ko yàlla nuyu na la te moom soxna Xadijatu Jibril mos naa wàcc ni ngeen ji mbindeef neel na si yàlla nee na nuyu na ko soxna asma bintu abi bakarin ba ñuy gàddaay ne ca xuntima ma moo fa daan dem guddi di leen yóbbul la mos lañ bëgg a xam ca dëkk ba mu mu mu di leen ko xamal waxoon naa fii ne minbar minbar bi imaam di yéeg di xutba ki ko njëkk xalaat njëkk ko defarlu joxe ko addiya jigéen la jigéen a ku njëkk xalaat ndax ëkkuk ëkkuk tàndaram rek fa la daan wéeru di xutba waaye bañ ko defaree defarale minbar ba nag mu bàyyi ko ëkk ga dafa binni jizun ya xinnu lahoo ya innu dafa binni mu teg ca loxoom ba bu tedd ba mu door a dal wax naa fii ba tàyyi ne jigéen a njëkk a joxe bakkanam ci lislaam muy soxna sumayatu way juru ammar ibnu yaasir loola ndam la loo xam ne jigéen am na ko te faat na góor dootu ko am wax naa fii ba tàyyi ne alquran bi ñu ko dajalee kaamil bi njëkk a dajale muy benn kaamil ci kaw suuf jigéen lañ ko dénk muy soxna xafsatu bint Omar ibnul Xataab wax naa ba tàyyi taxawaayu soxna ummu salama ak soxna aïchatu waaye wax naa ba tàyyi taxawaayu soxna awasar nga xam ne bi sëriñ bi naalee jumaa ji lim ba ko maam Ceerno jëkk a jox muy ñaar fukk fukki junni ak juróom-ñett ba muy seet ku doy ku ñuy wax soxna awasaar la ko dénk mu denc ko ren ba déwén loolu ay taxawaay la yoo xam ne war naa tax soxna yi xam ne waruñoo des ginnaaw dama jëlale nag ña leen jiitu muy maam Astawalo muy maam Jaara muy maam Fati Isa muy maam Anta Njaay Mbàkke ak seeni bokk ñoom ñëpp liggéeyal nañ diine taxawu nañu seriñ bi taxawaay boo xam ne bu ñu ko taxawutoon mën naa demee neneen lislaam bàyyi na xel jigéen ba nga xam ne jigéen ñëw na ci nga ji mbindeef di ko kalaame ak boroom këram ba mu waxee ba daaneel alquran mo wàcc qad samia allahu qawla allati tujaadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila mu ne ko li ngay li ngay wax ak moom yow yow Moustapha yàlla mi ngi koy dégg kon yàlla bàyyi na xel jigéen ba bi mu amee lu ko metti bam mu ñëw di kalaame dafa àddu am na kenn ci waa kër ngën ji mbindeef koo xam ne bu daan damu danaan ay bokkam yéen ñëpp seen diggante ak ku tedd ki ci kaw suuf lañ ko fase man nag sama diggante ak moom ca asamaan lañ ko fase ndax sunu borom moo ko jox ndigal ne ko ko jël muy soxna Zeynab bintu Jahsh yàlla wàcce saar tudde ko suuratu nisa wàcce saar tudde ko suuratu mariyam saaru al mumtahana jigéen a ko tax a jóg at talaaq jigéen a ko tax a jóg at tahrim jigéen a ko tax a jóg soxna asiyatu muy soxna si firawna alquran wax na ci ba tàyyi waajur yuntu yàlla musa wax na ci ba tàyyi balqiis malikatu saba wax na ci ba tàyyi kon daal malaanum suutura ak teraanga mi nga xam ne lislaam da ko muuroon jigéen démb ak barki démb nañu ko gën a xam gën koo fonk te xam ne leneen luñ leen wax lu dul loola waa tugal ak ña nga xam ne tugal moo leen jël njël mu njëkk ñu bëgg a xawi malaan moomee bëgg a wax ne jigéen lu ko neex na sol lu ko neex na def fu neex na dem te bu kenn ne déet bu ngeen gisee jamono ji ni mu demee ngeen xam ne foofa lañ bëgg a jëme soxna yépp waaye loolu doonul loo xam ne lislaam da ci ànd dénkaane soxna Penda Jóob ba kuy jullit bu jigéen ba ci bu góor sax war na koy nafar di ko jàng di gis lañ ca dénkaane mag ñi nga xam ne ñoo jiitu sëriñ bi tuuti ak ñi bokk ak moom jamono melokaan ya ñu meloon da ngay xam ne lam leen woon lam ne woon góor ña saxaaba yi ñoo ñooy seeni bàyyi ci diine waaye ñoom xam nañu ne saxaaba yu jigéen ñi ñooy seeni bàjjen ci diine moo tax ñu roy seen mboor topp seeni tànk moo tax mu amoon mbég mu rëy ca kaamilub kaamilub soxna Maymuna al Kubra ba loolu weneen waxtaan la yàlla nu yàlla sàmmal sunu kilifa gi nga xam ne moo ne ci kanam mbooloo mi dolli ko wér dolli ko ay ndam bari nay ndam lool waaye yàlla na yàlla dolli ay ndamam te lépp lu mu song ak lépp lu mu sumb yàlla na nu ko ànd ak moom ba mu yeggale ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 الله أشهد أن الحمد لله الذي أمرنا باتباع السنة في كل الأوقات وشرف المتبعين للسنة تشريفا وأخبرنا على لسان نبيه أن المتبعين لسنته عند ذهاب الدين وفساد أمته يضاعف له الثواب تضعيفا نشهد أنه الله الذي ارتضى لنا الإسلام دينا ومن علينا إذ بحث فينا نبيا أميا أمينا أما بعد فيا عباد الله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 fasta'iddu lil-mayti faqad adhallakum wa qad qaala sallallahu alayhi wa sallam akthiruu min dhikri haadihi al-ladhaat hattaa yanqati'a rukuunukum ilayhaa alaa وإنكم في يوم عمل لا حساب فيه ألا وإنكم توشكون في يوم حساب لا عمل فيه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين الحمد لله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار والصلاة والسلام على المبعوث للخلق بالتبشير والإنذار سيدنا محمد بآله وصحبه أولي الأيدي والأبصار أما بعد فيا عباد الله تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا بميزان الشريعة جميع أعمالكم فما وافق منها قسطاس السريعة قدوموا عليه وما خالفه فتوبوا منه واجتنبوه واعلموا أن ما في الآخرة خير وأبقى وأن ما في هذه الدنيا قليل يفنى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور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 لا حول الله ولا قوة allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala falaah qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعته الذكرى ليذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسمه تسموا وتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله الله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 هل أتيك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة منصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين ليس لهم طعام

man asalaamaaleykum